Mathieu ngi noonu écurie Waalo toujours prêt écurie Yoff Mathieu moo ñu woon ginnaaw toujours prêt lañ jàkkaar boog Mathieu moo ñu féete ndeyjoor toujours prêt moo ñu féete noonu Mathieu toujours prêt Mathieu daw na jël ko toujours boo Mathieu daan na ko vite fait bien fait vite fait bien fait Mathieu ngi noonu bas nañu